waaye du procureur du procureur moo ci am yoon du procureur moo ci am yoon parce que ay ay ay ay ay procédure la yoo xam ne yow mii ne dañu yàq sa der yow yaay intenté baal leen ma yow mi ne dañu la dañu la tumaal yow mi ne dañu yàq sa der yow yaay intenté pro procédure bi mais du procureur gis nañ ni Mame Mbaye dafa jël dossier am jox ko procureur pour procureur mooy poursuivre léegi Mame Mbaye Niang euh, nekkul euh, moom mooy toppee mais procureur mooy toppee or en matière de diffamation kii ñu ne moom la ñu yàq daram kii ñu ne moom la ñu tumaal kooku mooy toppee parce que au mois bi mu ne baale na rek baale na action publique amatu ci mais fii dañu gis ni procureur moo ñëw sol mbubbu Mame Mbaye di topp ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko procédure de diffamation du pour moom du pour Mame Mbaye Niang parce que beneen classe la beneen catégorie la beneen projet la mais pour senegalee soo xalaatee nii nit dafa yàq sa der dafa nit def la diffamé diffamé mooy loo xam ne buñ ko waxee ku ko dégg dafay xotti sa worma dafay tax ñu xeeb la ñu doy dal la loolu mooy diffamation te nga xam ne li ñuy wax amut nag bu boobaa li ngay def mooy da ngay jël sa avocat mu yónni nit ki citation directe citation directe mooy lan dañu doon avocat da doon bind Ousmane Sonko ne ko yow Ousmane Sonko est-ce que da ngay dëggal sa bopp nii yow yaa wax ni man IG IGE daf ma épinglé wala déet ma bamtuwaat ko ni mu waroon a demee procédure bi pour que ñu ñëwoon tribunal ñu atte Ousmane Sonko ñu respecté yoon mooy Mame Mbaye dafay bind li ñuy wax situation direct maanaam dañuy bind avocat mooy bind ñu jox huissier de justice mu yóbbul ko Ousmane Sonko mu liir mu ne yow yaa ne. man IGE daf may épinglé bu boobaa Ousmane Sonko dina rendre compte ni def na erreur mu ne non waxuma IGE mais IGF e laa wax moo la épinglé épinglé mooy lan sax moo bi épinglé mooy tuumaal nañ la joxam nañu baaramu tuuma jëmale ko ci yow loolu mooy épinglé mën nañu épingler nit dans un rapport ñu seet ba ci biir ñoo gis ne déedéet lu ñu la xalaatal ni defuloo ko mais Ousmane Sonko waxul leneen te bu ñu doon xool. ñu teg ko ci yoon ñu teg ko ci dëgg Mame Mbaye ñaar lu mu tegul ci deru Ousmane Sonko ci réew mi amut mais mun nañu ne peut-être Ousmane Sonko saisirul justice loolu dëgg la dafa mel ni man bés bu ne ñu saaga ma bés bu ne ñu tumaal ma bés bu ne ñu waxal ma lu ne du ma justice képp ku ma tooñ bàyyi naa la ak yàlla tax na bëri na ñu bari ñu ma ne temps ñu ne ma dégg nañu Françoise Hélène Gaye nee na da nga demoon di négocier ànd ak Ousmane Sonko ci téléphone bi ak affaire yooyu neewoon naa leen sax ay waxu Françoise Hélène Gaye du ma ci tontu parce que nit ñoo xam ne lu ñu la wax suba ba ngoon boo xoolee nga gis ni ay kacaw ay kasaw kasaw la pour bañ a wax leneen ñu bu leen yàq seen seen seen seen temps pour parce que kooku amul liggéey amul lu mu jàpp amul lu mu def te loolu c'est très dangereux dafa lay woon ni gouvernement bi gouvernement caaxaan la ci 17 millions de sénégalais amul kenn amul ñenn. ñoo xam ne ñoo war a taxaw di défendre régime Macky Sall di défendre le bilan de Macky Sall di défendre les réalisations de Macky lu dul Françoise Hélène Gaye lu dul ay ay ay ay ay beneen jaxase bi xamul mu tuddati ñoo ñu nga xam ne li ñuy njëkk a laaj nit mooy lan mooy passé wu nit lan mooy présent wu ak lan mooy futur wu nit ñooñu boo laajtee boo duggalante nga laajtee nga def enquête wala nga waxuma la sa investigation mais nga laaj ñi leen xam rek ñii ñooy ñan ak lan mooy seen jaar jaar leen nawloo donc du perte sama temps bëgg ngeen xam ndax dëggal du dëgg jàppale ni du dëgg du perte sama temps ci ñu mel noonu donc dañuy avancer léegi nag damay taxaw ci procédure bi nga xam ne moom la ñu toppee Ousmane Sonko de diffamation procédure boobu bu bu juge bu libre juge bu indépendant dafay dafay dafay dafay dafay rejeter simplement euh, comment on appelle procédure bi parce que baaxut voie bi ñu jël voie de de procédure judiciaire bi jaare ci procureur du noonu fi mu waroon a jaar mooy citation direct par avocat huissier de justice indil ko Ousmane ko mu dëggal boppam ne accusation yi moo ko wax wala waxu ko ñu dem ci leneen mais pas de cette manière donc loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne mooy affaire Mame Mbaye Niang et puis est-ce que l'affaire existe ou n'existe pas oui un pré-rapport existe un pré-rapport existe qui a été fait boo xam ne épinglé na la gestion du Prodac ñu tudd si Mame Mbaye bi nekkoon ministre bi ñu tudd si ki nga xam ne mooy Mamina Daffé te mu nekkoon directeur euh, Prodac bi directeur général Prodac loolu loolu kenn mënu ko weddi donc pour man c'est une autre am manière de multiplier ay procédures yu yu yu ñàkk a fayda yu ñàkk a juste pour tardel nit ñi ubbil ñu encore yeneen brèche nit ñi ñu ngi wax li ñu war a laaj mooy vingt neuf milliards yi nga xam ne dénkoon nañ ko ci Prodac bi te mambay ñaa nekkoon ministre xaalis boobu fu mu dem ku ko ku ko ku ko ko lekk na ko goxi loolu mooy wax ji de la même manière milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci affaire euh, Covid 19 ñu yebal policiers ak gendarme yi ñu nekk ci mbedd yi di jàpp nit ñi di dóor leen tëddaloo ay vingt ñaata mag lañ fi jàpp ci mbedd yi dóor leen ñooñu amuñu lu ñu lekk sénégalais yi cotiser seen xaalis ba mu nekk mille milliards ñu jox ko ab groupe lekk ko ñu toog ñu ne bu ko kenn wax ça veut euh, président de la république <clears throat> ak képp koo xam dafa ànd ak Macky Sall man pour man dama ni voilà le président bi nga xam ne moom mënoon am meilleure occasion sénégalais yi bëgg ko am meilleure occasion mën cee génn parce que buy woote justice bu ñuy waxee respect de la loi bu ñuy waxee respect des institutions li nga xam ne ay institutions ak i ak i loi yi ñu fi teg bu ko appliqué woon tey jii ñu bëri ñi nga xam ne taxaw nañu jàmbaarloo ak euh, nguur gi duñ ko def yaa ngi wax justice yaa ngi wax équité yaa ngi wax respect de la loi mais ñi nga xam ne na nañu alalu réew mi mille milliards yu leen jox na leen def ko euh, ki nga xam ne mooy cour de euh, comment on appelle cour des comptes wax ni ñii dañu détourner xaalis bi ñu fii lañ ko yóbbu ak fee lañ ko yóbbu mais ñooñu jàpp leen nga laaj leen boobaa sénégalais yi ñaar ba ñett sama classe gi ñu dugg ñu tàcc ñu ne président bi li mu def nii mooy yoon nit taxaw nañu ne leen gendarme Didier Badji ak diw rey nañ leen li tax ñu rey leen lii la nit ñooñu ñu ngi dox tranquillement justice waxu ci ñun suma xel day tey ci justice boobu loolu moom mooy wax ji c'est le meilleur moyen la meilleure manière pour avoir un, un, un dixième mandat s'il le faut mais en tout cas ñu dugal la seen xol à jamais mooy trente euh, vingt neuf milliards yi nga xam ne euh, Prodac dugg na fa mu ne mu ne mes ni mentañ ñu ne ñi nga xam ne ñoo ko jëloon ñu teg leen ci taa ne nañu wax génnee xaalis bi mille milliards yi nga xam ne tudd nañu ay ministre ak i DG ak i seeni chauffeur ñu teg leen ci yoon ñu delloo ñu alal jooju loolu mooy meilleur moyen de faire la campagne présidentielle amul leneen ni yoon su ma jógee ci loolu citation bi li ma gëm mooy c'est nul et de parce que procédure bi fu mu war a jaar jaaru fa loi la du man maa ko inventé feneen fu may dem bëri na sénégalais yi nga xam ne ñu ngi taxaw di wax ni euh, ki nga xam ne mooy euh, Ousmane Sonko dafa war a dem dafa war a dem pour ñu entendre ko le neuf dañ ko war a juger le neuf waxu jugement le neuf boobu mu indi euh, jixi jaaxa yu bëri ci xelu sénégalais yi ñu ngi naan noo ñii lu ñuy wax ni lan la est-ce que du waxi caaxaan est-ce que nekkatuñu di perteloo nit ñi seen temps nee nañu est-ce que du waxi caaxaan est-ce que nekkuñu di perteloo nit ñi seen moo tax ñu di leen wax ni Ousmane Sonko à la barre le 9 <laughs> il faut ñu expliquer leen quelques aspects bu dossier bi dafa am ci procédure parce que lii nii waxoon naa leen ni bu dee keneen la ci dëkk bu normal dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr fële ci brigade euh, ci section de recherche bu gendarmerie la doon yem. parce que amuñu dara ba dara booloo jeex bu ñu mën a toppee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko procureur Serigne Bassirou Gueye moo jël la responsabilité historique jël dossier bi renvoyé ko instru euh, instruit ko renvoyé ko devant le doyen des juges gannaaw Samba Sall ndem si yàlla ki nga xam ne mooy Maham Diallo ñu foog ne dana xalaat Sénégal dana xalaat euh, avenir u Sénégal dina xalaat génération yii di ñëw cent ans mille ans après te ñu war a mën a gis l'affaire Ousmane Sonko ñu fàttali ko taxawaay bu rafet bu mu ci taxaw moom moo taxawaat mu ne malgré tout dafa jëlaat moom it décision dafay renvoyer Ousmane Sonko devant li ñuy wax en euh, jugement parce que moom bu pare enquête dafay def li ñuy wax euh, dafay jël dossier mu yëbal ko procureur ne ko yet. Euh,